rabbi islah sadri wa yassir li amri waxlul xoolata min lisaani yafqahu rabbi nii rabbi raqqini rumma sha'ni zakkini nuuna xablal faayi wasini listajib daawati bi ma faaxa zanni wa bi ma faaxa rabbi kulla zununi nawit bi jaayil mustafal mamarri wa majlasi wa maskani wa birri bi xaqi wajikal karimi li xifiri wa kulla ma alaya anni kafiri barke Seexul Xaddim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi fii ci Touba Argentine TV seen beneen numéro di waajtaayu journée xasaayit gi ñu koy amal le 9 juillet maanaam 9 de julio muy altine bi ñu jëm incha allahu rabbi tey nag ñu seet si waa kuréel Touba Caution di yàlla di ñu mën a jàng macha allah ñu bëgg xasaayit yi ñu fi nekk di liggéeyal Serigne Touba ci xasida yi tey nag xam naa bala ñoo wéyal émission bi dañ leen di bàyyi. ñoom ñu barkeelu bu ko defee ñu dégg leen ba noppi su noppee doog a bismillah kon ñu jox leen ñu barkeelu ba noppi rabbi bima yazraul hazana qad faja bi jaayi abdaliman lillahi xalaja rabbi bima yazraul حسن قد فجاء بجاه عبد لمن لله قد لجاء هل لرب الغير من لا شريك له وسالي اليوم نورا سابعا الملائكة عليه بحسبي كل به كلا على إله إلا محمد مواهب لجلة الخلق ما يقدر من برا ناجي وكل من لخبري ما شاء الله تبارك الله ku dégg njàng mi xam ni njàng mi am na solo lool macha allah njàng mi neex na tegu na ci yoon xam naa bala ñoo sori dañuy jox jëwrin sëriñ Aliba nga xam ni moom mooy jëwrin kuréel gi ñu ngi siyaare baax sëriñ Xaadim ja jëwrin daayira bi sëriñ Baye Mbacke jenn sëriñ Baye Cheikh jenn suñ leen tuddee rek mel nañ tudd nañ ñëpp. wax yàlla njàng mi ko dégg rek xam ni njàng mi ñu koy jàng mën nañ ko lool te ñu ngi ci sonn bu baax a baax a baax waaw lépp nag ni ñu ko waxee woon sànq rek waaj waajtaayu journée xasaayit gi la kon dañuy jox sëriñ Ali Ba jëwrin moom lañu jàkkaarloo nii sëriñ Ali Ba mu sànni ay kàddu nuyoo bu noppee ñu doog a jublu ci laaj yi bismillah aouzu billahi min asaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum mbokki Touba Argentine yëpp asalaamaaleykum mbokki adduna bi asalaamaaleykum mbokki kuréel Touba Côte Sisson ñëw ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk turam ku santam di leen tuubal bu baax nag kàddu yi ñuy bëgg a yëkkati di rafetlu bu baax ci leen teewaay waa tubaa Argentine fii ci daara ji nga xam ne fii la ñuy yëngoo di di fi répété di fi daayira di fi defee liggéey Sëñ Touba bi di ziare bu baax a baax a baax suñu jëwriñ bi jëwriñu daayira bi sëriñ Xaadim Njaay mi ñu dendal ak sëñ Baye Mbàkke Jenn Baye Cheikh ak mbooleem ku nu bokk liggéey bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax te di la ziare xam ni bu ñuy wax waxi wun sunu kaddu kaddu mbooloo mi la ñuy waxee ñu ngi siyaare ñëpp rek di ñaan ci barkeb Cheikhul Khadim jotaay bi di doon jotaay bi yàlla gërëm ñu tàmbali ko bismillahi rahmaani rahim eggale ko alhamdulilahi rabbil alamina daji ci ak tawfiixi sëriñ bi barkeb Cheikhul Khadim jërëjëf jërëjëf sëñ Ali kaddu yi am na solo macha allah sëñ Ali xam naa ko ñu jublu ci laaj rek njëkkanteeg temps bi balaa waxtu wee dem ñu lay laaj sëñ Ali maanaam boo doon présenté kuréel gi loo ñuy présenté maanaam kuréel gi kuréel gi noo koy présenté waa jërëjëf sëñ Ayoba xuma loolu moom xam naa du jafe ndax euh, présenté kuréelu kuréelu xasida moom mooy commencé ci xasida yi yem ci xasida yi loolu rek maanaam doy na sëkk maanaam tontu laaj bi maanaam ci loolu daal la ñuy dox commencé ci xasida yi yem ci xasida yi maanaam saa su nekk ci loolu la ñuy dox doxuñ ci leneen. waaw jërëjëf sëñ Ali tontu bi leer loolu macha allah maanaam sëñ Ali ñu lay laaj maanaam kuréel gi. ba mu sosoo ak léegi war naa def ay at macha macha allah war naa def ay at ndax ku dégg njàng mi xam ne du jàng tey du jàng démb lu ñu yàgg def la ñu lay laaj maanaam si ñaar at la tollool. jërëjëf sëñ Ayoba loolu am na solo loolu laaj bi noo ngi tuub bu baax nag mu mel ni kuréel gi jamono yi muy jamono yi muy sosu noonu fekkutoon ñu ñëw ci dëkk bi dañoo ñëw ci dëkk bi fekk kuréel gi du dox yàlla dogal ñu tàbbi ci. di ci dox ba eh, suñu borom dogal mu tàbb ci suñu loxo ñu doon jëwriñ ji ñu xeebu ci lool nag xañ na seenu baax moo tax ñu jël ko teg ko suñu loxo waaye du suñu mën du suñu pësëf ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi leen ci jaajëfal waaye daal xam naa ci takk ma am eh, am na ay at ndax boo déggee njàng mi ak maanaam mm, collectif bi nga xam ni maanaam du ñaari fan du ñetti fan am na ay at ñu ngi ciy dox bu baax a baax a baax macha allah man tëkkuma at yi nag mënuma tëb nangami at la waaye xam naa ni ndax euh, ba muy sosu fekkuma fi damaa ñëw fekk ko fi ànd ak ñoom liggéey bi ba ba ba ba ba ba ban teg ko ci sama loxo comme nii waaw xam naa daal comme noonu rek. waaw loolu leer na loolu macha allah maanaam bu ma la doon laaj njàng maanaam njàng mi ci ban mag la ëpp lu njàng di basé wu euh, am kon xam nañ ci ay ñu si bari ñu si mel ni sëñ May ñu si mel ni Serigne Baye Moustapha Diop Baye Aliou Fall ñoom ñoo ñu daan jàngal sëriñ bi maanaam seen jàng si man ban mag la gën a basé wu nga xam ne lu ngeen ëpp lu ngeen di jàng ci am njàngam. jërëjëf sëñ Ayoba laaj bi am na solo kon ni ko waxee woon rek mu mel ni maanaam euh, njàng min ëpp lu ñuy basé wu ci njàng mooy njàngu mag ña muy sëñ Massamba moom la ëpp lu ñuy jàng danañ jàng sëñ Cissé sëñ Cissé ëpp na ci moom tamit lu ñuy jàng maanaam suivre nañ ko lool ak lu mel ni sëñ Mayib maanaam waaw ak sëñ Moussa Diop yooyu dañ koy jàng maanaam daal mag ñi la ñuy topp. waaw ndax moom li ñuy wax ci ab ab jàngkat rek maanaam ab kuréelkat maanaam saa soo ko saa soo ko tasee ci ci ci ñett yi nga koy tase hmm. maanaam donc sëñ Masamba hmm. sëñ Mayib ak ak ak ak ak tawil ñett yooyu moom soo soo ko soo ko ci kii mu mën ca dara rek hmm. la cay la nga cay dolliwaat du bari kon ñett yooyu mooy baasum njàng ci la ñu tënku ci la ñuy dox saa su nekk nag waaw teewul nag maanaam air yi nga xamante ni air yu bees yi ay air yu way ak yooyu des na ci nab nab waaye lu ëpp suñu baasum njàng daal mooy ma la limal mooy njàngu mag ña rek waaw sëñ Ali kàddu yi leer na macha allah am na solo lool waaw ndax waa kuréel gi ñoom ñi ngi jéem di fent seen ndaaji bopp wala commencé gun ko. jërëjëf sëñ Ayba loolu tamit comme ni ñu ko waxee rek ginnaaw yàlla dogal na ñi ngi dox te it maanaam jël nañ suñu bët teg ko foo xamante nii lépp lu waay maanaam fu ñuy dégg ab kuréel ci àdduna rek bëgg nañu dégguñu fa. xaj na amagul waaye mi ngi ñëw incha allah ndax ñu ngi ciy jéem ñu ngi ciy dox suñu kem kattan. yàggatul dara bu soobee Seexul Xadim ñu ngi ciy jéem suñu kéem kattan fexe loolu am incha allah waaye ci jamono yi ñuy wax yow nii nag moom mënaguma ne am na ndax déggagun ko waaye ñu ngi ciy def suñu kéem kattan bu soobee balaa yàgg ko dégg incha allahu taala jërëjëf sëñ Ali yi am na solo yaa leen yàlla suñu borom yóbbu ak jàmm waaw ndax sëriñ bi am na lu ne mën na lu ne yaa maalikal mulki li wasanta duna jawan la waxoon waaw kon jërëjëf sëñ Ali waaw xam naa kon ñu bala ñoo dugg ci journée xasaar yi ñu laaj la benn laaj rek ndax euh, dëkk bi ni ma ko waxee woon korok bëri na ay kuréel macha allah léegi te ku nekk yaa ngi jàng te ñu ngi si dégg ñu mën a jàng macha allah waaw seen diggante ak yeneen jànkat xasaay di fi nekk moo xam ñi rajas moo xam ñi kuréel ak ñeneen seen diggante ak ñëpp ëllu xasaay daal maanaam. sëñ Ayoba na solo laaj bi diggante bu ratax rek diggante jàmm yéeneente jàmm soppante te jëmmi rek tax ndax ñun ñëpp ñoo bokk bëgg ñoo bokk fu ñuy roote ñoo bokk fu ñuy sottee. kon nag maanaam dara mënut a dox ñu diggante ak bëgg ko ak sopp rek lool loolu rek la waaw maanaam daal foo ko takk ci grattax foo ko takk ci ak ak ak soppante romb na ko loolu moom suñ tubaab lañ koy seedeel waaw loolu loolu moo am hmm. waaw jërëjëf sëñ Ali wax ji leer na kàddu yi leer na macha allah xam naa kon bala ñoo sori dañuy daal di dugg ci wàllum suñu xasaayit gi xam naa sëriñ Xaadim ja jëwrin moom moo moom moo koy leeral ñu waxtaan ak moom sëriñ Xaadim ñu ngi lay siyaara bu baax a baax a baax di la wax ni leen daan wax rek yàlla na jën bi oyof xam naa kon dañ lay jox nga ñu ñu bàyyi la nga wax maanaam journée xasaar gi ak ni ngeen koy waajee ndax xam na ni yéen koy waaj bu baax a baax a baax a baax a baax kon sëñ Xaadim bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax kenn ku nekk ci turam ak santam di baalu ñëpp ak di baalu ñëpp ak di jël siyaar bi di ko teg ci loxo yi suñ jàngkatu suñ magum jàngkatu président muy suñ bàyyi Mbacké Diène ak suñ bàyyi Cheikh ak gars yi topp seen ginnaaw yëpp rek barke suñ Tuubaa di wax ne laaj bi nga laaj am na solo lool surne xasida bi moom euh, yàlla dogal na moom bett ñu yàgg nañ ko waajal daanaka mën naa ne la bañ jógee ca bu daaw ba ba ci suba ga lañ ko commencé bàyyi xel ba yoon yàllay tey jii te loolu it li ko waral mooy yàlla dafa def suñu matt ci ci ci liggéeyu suñ Tuubaa bi fii ci dëkk bi mooy njàngum xasida loolu moo tax daanaka dara duñ ci bett euh, moo tax daal liñ la mën a wax mooy ñi ngi koy waajal bu baax a baax ci suñ xam-xam ci wàllum njàng suñ doole ci suñ wërsëg ci suñ lépp rek ñoo koy waajal ci côté yépp daal macha allah. gan ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw ci bés bi looy looy looy kii seen kàddu maanaam yi nga xam ne ay kàddu ndénkaane lay doon. laaj boobu am na solo lool gan yi nga xam ne dañoo war a ñëw ci surne xaside bi buñ amee lu ñu leen di dénk mooy. kenn ku nekk ànd ak yar ak teggin xam ne maanaam li ñuy fekk si muy liggéey Sëñ Tuubaa ci xasida yi maanaam Sëñ Tuubaa da ko fonkoon lool ñuy wax nag kenn ku nekk booy ñëw nga xool la gën a rafet ci say yére nga sol ko xool la gën a rafet ci say jikko nga indaale ko jikko boo yor bu xaw a am neneen nu mu demee nga bàyyi ko ca kër ga ba ñëwaat ndax atum lëm nga jël ci benn bis dong ne surne xasida la kon bis boobu maanaam jikko yu rafet jikko yu tedd jikko yu sell war na faa ñëw ñuy sàkku rek bu bis baa kenn ku nekk nga nga luy defar bis bi rek nga jàpp ne ci yow lay jóge te lépp loo xam ne si moom nga moom mooy yàq bis bi bu la ci kenn seen ngir jëmi Sëñ Tuubaa buñ ñëwee nañ ñëpp ànd dugg ci biir saal bi toogandoo def ay sàppe jublu penku jàng alxuraan jàng xasida jëmmal bis bi ba keroog ñu fay jóge jàmm ndax yàggut yàggut bariwut duñ fa yàgg duñ fa yàq kon nag nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ànd ak yar ak teggin doxal ko ba képp ku fa ñëw koo xamante ne si maanaam bokk woon ci diine ji sax maanaam mbir mi dalay jaaxal ba yàlla mën naa dogal loola euh, doon li lay dugal ci diine ji foofu lañ teg suñ bët ngir jëmmi Sëñ Tuubaa ñu ngi ciy woo ñëpp rek muy ñi nekk ci daara ji muy képp kuy dégg suñu kàddu ngir jëmmi Sëñ Tuubaa ku bokk nit kërit na nga ko soñ ci côté boobu bu baax a baax ñu soññee bu baax a baax tamit ci teel gi barki Sëñ Tuubaa ak teew gi te bañ a bàyyi ba bis bi xaaj ndax journée xasida la lépp lenn loo ci dagg lu nekk rek ci sa bopp nga koy def waaw kon nag nañ teel a ñëw te ànd ak yar ak teggin waaw ba mbir mi jeex ci jàmm rek waaw barki Sëñ Fallu xam naa comme ni nga ko waxee rek sëñ Baye Mbacke ñu ngi koy siyaare baax di siyaare sëñ Modou Bousso di siyaare ñëpp di ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakhal Basir yàlla na fi yàgg lool te wér noonu lañ koy ñaanalee tamit sëñ Moussa Abdou Khadir suñu sang bi di ko ñaanal sëñ Cheikh Jëmbu Fall ak képp koo xam ne yaa ngi sol sa dàll te lislaam bi tax laa jóg ñu ngi siyaare bu baax a baax a baax di wax ni nag comme ni ko gars yi waxee rek journée xasaayid bi dañ ko waajal bu baax a baax te xam ni sëriñ bi moom am na lu ne mën na lu ne moom nag mën nañu sëriñ yal nañu yàlla suñu borom subhaanahu wa taala def ñu mat ko ay taalibe te moom li mu doon wax naa zuriyatan tayyibatan tujaddidu ndax jënn biyal Moustapha taj taxidu yaan ci yàlla boole ñun ñëpp kon waa axiru daxawaana alhamdulillahi rabbil alamin ci doon wa rahmatan wa barakatan barke Cheikhul Xadim ak xasaayid ngeen ngeen jëf maalama xad na wal xalbu min dararin bijaayi abdaliman lillahi xad la jaa maodama xad na wal xalbu min dararin bijaayi تسليما لله قال جاء